Waly loo wax. amoon nañ kii amoon nañ ko kii du mos a bëre. Lac de Guiers am na avertissement. Lac de Guiers am na avertissement lan moo tax lii wuñu ko moo daan tax première action bi nga Siteu génne am na avertissement lan ñu wax si loolu. jërëjëf ana Père Max. Siteu moo am benn avertissement. règlement da koy jox ndam. mais ñun ñu ko andi kontaan nañu. parce que gis nañ beneen Siteu mi ngi màgg. parce que boo demee ba àgg ci benn niveau bi du yoon day wanteer sa combat da nga koy gérer. Lac de Guiers moom lañ jox ndam mais waruma ne kontaanul tey moom ci boppam. mais ñu ne woon si te amul doole mënu ci dara wax leen ko Lac de Guiers da ngeen di wax ak moom. mu mën a bëre xoolal dalal dalal dalal dalal. Lac de Guiers dafa yow li dalal dalal li muy bañ lay dëgg. dalal jigéen la. man Kader maa ko wax. non Kader. Eh, Papis xam nga bu baax. góor jigéen la. Lac de Guiers góor jigéen la. non non. yéen événement yi nag dafa am lu ñu koy bëree. du yoon rek nga ñëw forcé daanu dem sa yoon du yoon da nga koy géré. la da guerre nee naa la moo am ndam mais waroon na ne kontaanul tey. mais si tey indi na doole ci bari père. non si te xale la tey muy gën a am expérience fi avant muy bëre sax ñuy wax ak moom ay combat ne ko bu la neexee ñu jox la ay moromi la da guerre. ci côté mobilisation li mu andi ñi ngi doon wax combat am ak Ama li ma dégg ñi ngi doon wax moog Tapha ñu ngi doon wax moog Balla Gaye père mag da ngaa sob fu sob ah dégg naa lii la man daal man daal ma non maa bëgg doon cumul de contrat man kawuma damay bëgg rek di signé par benn contrat su ma tàggoog moom dem witti leneen mais xam naa ne daal waaw ñun kontaan nañ ci Siteu mais dégg nga Balla Gaye non bu ma bëgguma dugg ci dégg nga Tapha Tine baal loolu dégg nga Ama Baldé sob moo doon baal loolu dégg nga <laughs> père a ngi doon wax bu kii dalal naa nana ma jël lañ ko jonwaar Siteu daa jeex. ma ne ko ci image yi la. waaw mais Siteu bëgguñu woon mu andi masse. doole lañ bëggoon mu andi. waaw loolu laa gëm mais buñ ne la ji wala ëpp nga jël ay protéines andi masse dangay gaaw gaa sonn doo mën a ko combat bu yàgg. defe naa ne loolu laa la wax. loolu nga ma xam nga ne entraînement du fen. jërëjëf mais ñu daal ci gàttal. Père Thiam en tant que kilifa lamb lamb ji jeex na ci jàmm looy wax. macha allah sant yàlla rek. lii lii ndamu lamb la. waaw ndamu lamb la lan la ci lamb mën a jàng waa lamb. non lu bëree bëree bëri lu bëree bëri. lamb daal ah. lamb daal mi ngi dox ay jéego daal. mi ngi dox ay jéego na ci ñëpp jàpp rek. jërëjëf jërëjëf. Père Ibrahima Mbaye. parce que tey am na mérite. ku ne foogoon na tey jii Siteu du bëre lii. lan nag ku ne xam na ni muy bëre day défense boo boo jógee mu fël la loolu mooy fooram taxawaay bi booy bi taxawee moo kase di bëm booy bi da ko jot distance boo xam ne bu jógee du ko fekk waaw xale la nag xale màgg na lii wane na tey mi ko topp ñu ngi dooloo njukkal xam ne li ko topp caaxaan maye wu ko mais père Ibrahima fan la jëm ah Siteu fan la jëm non fi mu nekk nii comme ñu ngi maye sens waaw su ma sonoon bu dee may promoteur waaw dana jël Balla Gaye wala mu jël Ama Baldé laa <laughs> man su ma doon promoteur Balla Gaye eh, Siteu ngi noonu ci plateau Siteu ngi noonu ci plateau mais mais mais loo wax Doumbouya loo Anta waaw billahi Modou Anta la da gaan ma la day satal yoonu jàmbur quoi billahi wóor na alxuraanu kariim mais la da guerre moom ci li mu wax nee na moo diri sa combat moo attaqué moo gagné song yi am yëpp Siteu ko song mais la mais cinq song yi am yëpp Siteu moo ko song Modou Anta waa làmb xam nañ amateurs yi xam nañ supporters yi xam nañ Modou Anta barke Seydouna Mouhamed laa lay waxante ne kii day kii day suul ndaanaan Modou mais mobilisation bi Siteu andi ci stade bi tey bi cinq mille fan la jëm mais Modou ci kattanu yàlla waaw comme li ma waxoon rek laay waxaat muy lan Ama Baldé yàlla na ko yàlla defal jàmm amin amin Ama Baldé waaw yàlla na ko yàlla defal jàmm amin après promoteur bu bëgg làmb coow ak làmb ju neex. ay Modou Anta. waaw. tey si guddi gi laa lay waxante ne. nga woo nga avance Ama Baldé pël bi. waaw mais boo bëggee dégg-dégg. waaw. moo tax ma ne la Ama yàlla na ko yàlla defal jàmm. këll ku yàlla daa bandi gi daal doomi Falaye Baldé ji. xam nga ñoom nee ñoo moom fii seen toolu maam la. waaw waaw mais dañ koo jaay. dañ koo jaay waaw. tubaab bi lañ ko jaay wala chinois bi. mais yow tamit nag xam nga ñun jàmm gën commune Pikine la bokk. waaw moo ëpp ci Pikine. Uh-huh. moo tax bu dàqu leen dàqu leen ko. Ama Baldé lépp lu muy jaay rek yàlla mi bëgg ko ëpp. jaajëf Deme jaajëf Deme mais la dëgër per dañoo nax. eh si te amul ndam de. non ndam la am Balla eh, Gaye lañ soxla. kan taxawal taxawal ma ñëw taxawal ma ñëw waaw. Eh. taxaw leen ni taxaw leen ni mooy. ma wax la benn affaire waaw. dal leen dal leen yéen ñaar Balla lan. Balla Gaye lañ la eh, de. Balla Gaye lañ Ama Baldé. mi nekk ku ñëw bëgg nañ Ama soxla. wala Balla Gaye ku ñëw bëgg nañ. la déet ba non non déet déet baal mu sedd. baal mu sedd. waaw kay li nga wax yëpp dëgg la kii ngay suul ndanaana parce que Seydou Tidiane ngay suul ndanaana te waxoon si signature contrat ay bu ma jàppee di tëkkuwaatee la tawal. déet déet baal loolu baal loolu affaire jeeg yooyu déet ñu waxtaan dama ne. jeeg bu rëgg la dama ne dama ne. Siteu combat bi jeex na ci jàmm la de Guiers na ko par avertissement. mu andi fi mbooloo. fan la Siteu jëm. moo daan lii du victoire waa ji moo daan de du futti waxaat maa ngi ñëw ci yow yow mi la la naqari ci Lac de Guiers tey ma wax la ko damaa tëdd ne dégg la ngay li nga doon wax ci Lac de Guiers lépp dëgg la Lac de Guiers la tooñ neel benn day dàgga sante jawa la tooñ muy ñaar Lac de Guiers góor jigéen la yeggal ko ca déedéet eh, loolu yow nga daan ba pare si supporter sax waxuñu ah! waxuñu ah! Siteu mi nga xam ne dañ koo ñun xoolal ñun ñu ngi bég. ñu ngi kontaan bég. barki alxuraan fii ngi neex. mais lii de ku ko mës na def a kan moo ko mës a hygiène yi tënk ko rasu. ba pare Siteu nag yàlla xolam la koy ni mu taxawee jàmm gën barki alxuraanu karim. Eh, li nga ko wax dëgg la ah, ma ko wax dëgg la lan la ngeen ah, wax eh, déedéet bul tudd tur boobu. Ah, jërëjëf Modou Anta ma waxal la leen yéen a feeñoo a bàyyi xel yow Modou Mbaye ak nekk si suuf yéen fu mbër nekk. amul doole pour génn yéen ko dem lokati andi ko fii. jërëjëf yéen yéen da war a sant di leen gërëm. jërëjëf seen i rakk ngeen di jëf. jërëjëf. loo wax loo wax une minute. mais ñu lii taxawal loo wax. si na jàmbaar la si na lii dara jàmbaar la. deux minutes taxawal na bàyyi xel bi ñëw di bëri dañ koy fay xaalis. si na jàmbaar la. waaye yoo xam nga nag yéen bu baax kenn leen wax jigóo. mais mais li ngeen dundee combat bi yéen waa jàmbaar. li ko dundee mooy mbégte. dal leen dal leen parce que suñu mbër jàmbaar daa ñëw wane. jàmbaar la si mais loo wax sec une minute njool mi njool mi njool mi njool mi waaw may ma ñëw njool mi